alhamdulilahi ala tawli rasul murid yi ngeen déglu man da bun ko suul sët la ca xadimal mustafa xayri rasul loxol jalali wal jamali wal usolo auzu billah bismillah idamala yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli di mbokki taalibe yi nga xam ne yéenay bàyyi xel Wilaya TV ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar comme niñ ko ànde woon rek ci samedi ba léegi ci waajtaay bi nga bu mag bi nga xam ne moom la fédération des groupements religieux et culturels des disciples Cheikh Bamba euh, Wilaya nekk ab structure ci doon ko waajal muy congrès bi tey nag ñu ngi ci bés bu njëkk bi di samedi tombeeg janvier 2024 ñu nekk fii ci résidence Cheikhoul Khadim bu euh, Daaru Marnaan ñu ñu ko gisandoo nii mbooloo mi ñëw ñëpp ñëw nañ section yëpp ñëw nañ pour bëgg rek commencé liggéey bi 17h rek lañ lañ ko commencé boobu léegi samedi boobu ba tey ñu ngi ci préparation yi nekk ci bés bu màgg bi nga xam ne moom lañ fédération bi di amal ànd kook section yëpp bokk na ci section Ngaye bokk na ci section Touba section Dakar section Thiès ak yeneen i section yu fasantikoo ak ñi invité yi nga xam ne tamit ñoo ñëw ànd ak ñun te yaa nuy woddu yal na sëy bañ yépp xey ni koddu walaay baax bu doon teraa may bañ doo gis ku bañ seex mbàkke mbaa ku koy foñ du weccey soppeem ba tax mu bombe du wet ci biiri noonam ya def fa njombe seex mbàkke xajut fu sew mus la jëw du wax miim te foo ko jëw ñu caw la kon ne leen xiim waa liggéey bi xanaa kontaan ci rek liggéey bi jaar na yoon trop teewaay bi rafet na social yi def nañ la ñu war a liggéey def nañ ay formation andi nañ fi façon produit trop waaw ci teewaay bi ñu ngi def ay formation waa di def ay di liggéey waa di former waa ñeneen ñu ngi koy def te lépp wilaaye la lépp ci wilaaye la rek ak kontante fekkewaat congrès bi nga xamante ne mooy dixième congrès fédération bi nga xamante ne Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma moo ko sos ñu sant yàlla bu baax baax mi nga xamante ne fekke woon nañu ko ren mu fekkalaat ñu ko muy liggéey boo xamante ne liggéey bu yàlla rek tax tey jii bis la bu màgg boo xamante ne ndamul islaam jëpp la ndax kat ki nga xamante ne moo tax ñu teew ki nga xamante ne moo woote woote mburu bii te dara wëralu ko dul rek wax te simo bi xam jami'an wala tafaraqu na ngeen ànd nekk benn jàppalante dimbalante ci buumu yàlla gi te bu leen taqalikoo loolu rek moo waral suñu teewaay fii ñu bokk nag ci da ci bokk ci section Touba di dalal gan ñi ngi sant wax yàlla ci organisation bu rafet bii nga xamante ne moom la mbooloo mi amee ñëpp wuy si nañ góor jigéen mag ndaw. di ñu teew di kontaan ci bis bi rek waaw bis bi ñu ngi ñaan yàlla ñu teew ko ay ndëgën déwén barke borom Tuubaa moom suñu xol seddu guy rek suñu xol seddu guy ci bis bi waaw nga xamee moom suñu barke su gënee faam bi ñu teew ñu fi nekk teew nan ko lu ko raw ñu ñaan yàlla ñu fekk ko fetal ko ay ndëgën déwén géej moom dañ ci kontaan bu baax a baax di ñaan yàlla ñu yàgg woo fekke te lépp luñ ci def rek yàlla nangul ñu ko ci barke Cheikh Khadim te fédération bi yàlla def ko mu jëm ci kanam ñun ñëpp ñu fekk ko la tal ko barke Cheikhul Khadim xutbul waraala muy dogal daate labbayka wi si naa la bul ma fàtte di kontaan ci bis bi suñu xol sedd na ci lool dëkk yàlla di ñaan suñu borom yàggal ko ndaxte yàggalante dox loolu nag ba nga xam ne ba ñu nekk tuut tànk ba léegi ñu ngi ci di dox ba léegi ñu def ci suñu njaboot tey suñu njaboot di dox yor ci ay poste loolu ñu ni ko sant yàlla suñu borom bu baax a baax di ñaan mu jëm kanam. alhamdulilah li si njëkk mooy sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala bi mu nu mayee ñu bokk ci ñi nga xamante ni fekkee waat nañ congrès ren bi te di ko ñaan itam mu may ñu ñu fekkee ko waat ci at yi nga xamante ni mooy ñëw. ak sant yàlla lañ ci am rek bokk ci liggéey bi fekkee congrès bii passé ñëwoon bokk ci ren jii tamit ñu ñëwaat bokk ci ñi nga xamante ni fekkee ak sant yàlla lañ am bu baax a baax. ginnaaw ba congrès bi moom ni nga ko gisee mooy dañuy tànn ci biir fédération bi donte sax du ak tànneef waaye nekkul obligatoire ci ñëpp ne war nañoo ñëw fekkee ko. moo tax ñenn ci mbooloo ma mu takku bàyyeekoo nañ Kaolack ñu fekkee ko teewal ñi nga xamante ni mooy ñeneen Kaolack te mënuñoo agsi ci jotaay bi. jiitu mooy ñu xam ne liggéey bi liggéey bi yàlla la. ñi ngi ñaanal sëriñ Mbacke Mouhamed di ñaanal sëriñ Cheikh Fatma mi nga xam ne moo taxawaloon yëf yi di ñaanal Cheikh Abdou Fatah saa borom ay ngërëm dooli leen ay may fa ñu nekk ndax lii rek lañ bëggoon luñ bëggoon mooy liggéey bi nekk liggéey boo xam ne buy continuer la su nekkutoon luñ taxawal ngir ñoom ci seenu jamono rek mu nekk fi ñoom bu ñu fi bàyyeekoo loolu daal di daal di jeex waaye dañ koo taxawal mu nekk loo xam ne day wéy li fekk diine islam mi ngi fi ñu bokk fi nekk fi kon ñu xam ne liggéey bi liggéey bi yàlla la ñëw gi fi ñëw tey moom mi ngi màndargaal ñu natt sunu juróomi at yi ñu romb li nga xamante ne liggéey nañ ko ci ñëw gaaral ko mbooloo mi xamal leen ne liggéey bi ngeen ñu dénkoon kat mi ngi nii def nañ ko ba fii la toll ba noppi daal daal defaraat beneen programme boo xamante ni moom mooy taxaw moom mooy li ñu war a def ci sunu cinq ans yi nga xamante ni moom mooy war a ñëw kon ñi ngi ñaan yàlla lépp loo xamante ni euh, euh, ak conseil fédéraux yi tënk nañ ko fi mu nekk ab programme bu ñu war a am ci 5 ans yi ñu mën koo taxaw bu baax a baax dañuy wax ndaw ñi nag mooy Serigne Mbacke Mouhamed Serigne Cheikh Amadou Mbacke Gaïndé ma ak mboolem seen kilifa yi nekk si jotaay bi royukaay lañ si ñoom ci ñu xam ne bu fekkoon ne maanaam maanaam ak wàcc dana kon mag ñee toog mën a wàcc waaw kon ginnaaw mag ñee takk seen laxasaay kon ndaw ñi moom safu noo wax dañoo war a takk suñu laxasaay suñu ndigg fas yéene nekk ci liggéey yàlla bi nga xamante ni ngërëmal yàlla rek lañ ci sàkk lépp loo xam ne laaj na ko lu mu laaj lu mu mën a doon rek ñu def ko def ci loo xamante ne mënuñ ko ngir jëmi yàlla kese nag ndax yàlla rek lañ koy defal xutbul waraara mooy dogal daate labayka wuy si naa la bul ma fàtte nee naa ciw mi atte pey bii ne naa naraw ci yow mi donay sëy ba dem nga fra Seex yaa dib daan liggéey wilaaya sama xol sedd rek ndax man suba ba ca ngoon ci laa nekk waaw ci turu sëñ Moustapha Asuburi rek ndax moom lañuy liggéeyal waaw njiit li moom moom mooy njiit li ci nun këram la nekk foofa lañuy liggéey waaye sama xol sedd na ci mbooloo mi kay moom xanaa di leen sant te di leen masawu coono ndax sonn nañ lool ndax koo xam ne yaa ngi paas di ñëw ak nit ñi nga xam ne noo ngi ci dëkk bi te ñëpp rek ngir yàlla ak Cheikh Moustapha rek ñoo tax ñuy ñëw ngir rafetal liggéey bi rek di ñaan rek saa borom yokk wér gi ak wërsëg bi lépp luñ ci naal rek saa borom eggale ko ànd ko ñoom. macha allah kontaan nañ parce que lii dafa yàgg dixième édition ba léegi ñu ni kay am fierté bu baax a baax a baax di ñaan nag ñu teewe ko ay ade yu bëree bëri. di am kontaante bu baax nag ci bis ndax macha allah woote nañ ko waaye wuy si nañ lépp nag ci liggéeyu sëriñ seex Gaynde fànn sëñ Cheikh moo koo xam ne lu mu def rek day jëm ca kanam defut dara luy dellu ginnaaw tey nag li wane na ko tey nag dañu nekk suñ kongare saytu suñu liggéey suñu liggéey nag moom lañuy saytu tey daaneel suñu bureau yëkkatiwaat suñu bureau kon nag ñi ngi ñaan rek lépp luñ ci wax yàlla nañ ci am ak dégg te lépp loo xamante ne nii ñu ngi koy waxtaane nañ ko déglu bu baax ndax dañuy saytu suñu liggéey. bis bi moom wax macha allah kontaan nañ ko ndax liggéey bi moo ko laaj di liggéey boo liggéeyee juróomi at nga taxaw tax def taxaw seetlu loolu day lu am solo kon nag ndokk yàlla bu ñu ko yàlla mayee ñu fekkee ko fekkewaat ko bay def cinquantième cinquantième édition alhamdulilah rabil alamin sant yàlla bu baax di ñaan yàlla ñu fekke koy ati at. te yàlla suñ borom dogal lii nga xam ne moom la ñuy génnee ci résolution yi yàlla dimbali ñu jàppale ñu ba ni nga xam ne moom lañ ko bëggee ñu amee ko am ci ndam lu kawe suñ jot aleyhum salaatu wasalaamu